Tapha Tine Reug du combat non non leen lan moo tax Reug Reug gaa champion la comme bëri yëpp def na fi lu tax nu naan Reug Reug bu fi def koon dara kenn tudd tudd Reug Reug mais aussi Tapha dafay def lu gën a kawe li fi Reug Reug def waaw parce que parce que Tapha Tine dafa bëree ñëpp. bëri nag ancien roi des arènes bëri futur roi des arènes bëri nag Bombardier Bombardier ancien roi des arènes la woon Tapha Tine bëri nag moom daan ko bëri nag roi des arènes naan ko Balla Gaye Balla Gaye daan Tapha Tine Balla Gaye daan Tapha Tine Tapha dafa liggéeyaat am deux daan ay mbër taxaw position ba mu taxawoon kon Tapha Tine gars ko war a may chance mu dugg coup de grâce mais waruñu ko jox ay boo yoo xam ne day doog a débuté ay boo yoo xam ne day doog a débuté boo yoo xam ne àggagunu bëri gunóog roi des arènes gaar rek daan na fi champion kenn du ne daan na fi champion parce que man soxoruma man làmb laay dund mais daan na fi ay mbër comme ñëpp mais ñu fi Tapha Tine daan rek rek daanagu leen. dañu gis ni dafa xew mais aussi ak ni nga koy def ba gaa yi may la sens mais rëg rëg comme ni muy def nii gars yi dañ ko gaaw may sens estafam nan ko nan xoolaat li muy def. li muy def mooy day attaqué mbër yi parce que xam nga lan moo tax ma ne day attaqué mbër yi rëg-rëg bu waroon na bëri ak Tapha moom dafa war a ñëw ñaan raam ñaan pour Tapha Tine may parce que Tapha Tine day may booy chance yoon lii loolu leer na la ñaata booy la fi bëril non di ñaan mooy moral ba bëri ki li nga bëgg mais xët-xët maywul dara yow xam nga li may wax yow pël bu rafet non boo dëkkanteeg ñoom na am na professionnel yooyu du la may chance rasu parce que Tapha Tine ñi may chance yëpp amul kenn ku ko fi teg pression bu may la sens. bu baax day tege pression parce que la dëggee lëg-lëg bu taxawee ne la dëggee du mbër taxaw ne guy gi du mbër taxaw ne tafaatin du mbër de xam nga ne ñooñu la yor làmb ji di la dëggee bu génnee ci làmb tafaatin génn ci làmb ban mbër moo fi des. Balla Gaye Boy Niang day neex Balla Gaye rek mu may ko sens. combat la mais day neex Balla Gaye parce que làmb dafa am loi làmb du dëggay tëb tëb rek ne kii laa bëgg mu may la sens déedéet day neex ka nga bëgg mu may la sens loolu mooy làmb comprendre nga mais nag booy def nañ fi loo xam ne war na leen a may sens mais day neex mbër yéen yéen ñaan sens. làmb moom euh, Tafatine tey Reug Reug am na droit dekk tafaatin Ada fas am na droit dekk Tafatine Yaaw Jaal am na droit dekk tafaatin parce que Tafatine moo tollu noonu mais nag la nekk <laughs> taf Reug Reug fi kawe ak àggagu fi li wuli def defu ko. ah moo njaaytin la yemat parce que mbapat rek la siiwe ba muy bëreek Elton ak bi Tafatine di bëreeg Elton dafa nekkul benn parce que Tafatine bi Elton di bëgg lam nekk lam tegu ci yoon ñëpp gëm ne moo mën Tafatine ci la ko tafaatin duma ba nu nangu ko parce que moom rek rek nii Elton nii Tafatine di wuute rek rek ni la ko doon wuute dem ci télé bu ne man sax demoon nañu ba sikk ma ci parce que ñëpp danoo foogoon ne moo ko man léegi mu dig Tafa dóor ko ba nu nangu ko tafaa sax bu ko bëggoon na daan daan ko mais ñun ñoo ko ne comme loolu la gëm bu dikkee duma ko ba mu xam ne yaa ko man kii nag dafa agsi wut bu agsi woon sax dina jël wala mais parce que Reug Reug daan tafaatin bu ñu bëree woon kase bi bu nu ko doon bëree par par cinquante mille bu ko ci mayut du ci du ci du ci du ci du ci du ci am dara mais. mais nag grand contre poti bu doo bu ñu koy wax mooy nga ne guy gi wala nga ne garga mboose <laughs> wala nga ne Moussa Ndoye wala nga ne Modou Anta wala nga ne ama neex mbër yi fi yàgg a nekk di bëre waaye Elton bi muy bëree kii mu ngi tukki mu ngi Europe neexatul ci ikri tegootit ci yoon kooku daan ko yom na daan Bombardier yomb na moom Bombardier mi nuy wax mën na bëreek moom parce que Bombardier amatul lu muy perte ci làmb nekkatu ci yoon mais Tapha grand contre petit bëre nag ah, ah, Ama Balde bëre ak Yékini Senior bëre guy gi bëre ak sos loolu gay doy na ñeneen ñi nañu ko def rek rek lu tee mu jël Gris Bordeaux wala Tafa wala Kale wala wala Balla Gaye fii mu tollu làmbi kenn yombul parce que promoteur moo fi amul buy teg événement yooyu kana fi am combat kenn la fi làmbam yombut de bu fekkoon ni promoteur yaa ngi sponsor yaa ngi taxaw di couvrir promoteur yi combat yëpp ay am mais promoteur boo fi nekkul kenn a fiy dikk kenn day dikk fukki nit nag booy tànn dina am ñu des te fii mu tollu kana fi des kenn la làmbam yombut fii mu toll coow li loolu gaayee koy wax rek te xam nga nit ñi it dañoo war di wax li nga xamante ne nii mooy réalité bi mais bu nu singli mber rek naa combat mi yombut wala combat yombut amul benn combat bu mag bu fi yomb parce que kenn bëreewu fi bu promoteur yi amoon yu mag yu teg combat yu mag yi sponsor yi jàppale leen kon ñëpp ay bëre ku ne ci xam nga ka nga war a bëre Reug Reug ba muy xaru ci Tapha xam na ne xam na ñi mu war a bëre mais nag dina dina wax ci tafaatin pour que mën a am euh, ku mel ni euh, Yékini Senior wala mu am ku mel ni Gouye Gui wala Sa Thiès wala ñooñu parce que ñooñu la doon laaj ñooñu la doon laaj ñu ne deet dañu ko ne aksi woo daa am foo war a jaar bu dee moroomam ñemewu ko ñu di moroomam Serigne Ndiaye numéro 2 Franc booy fay Ngel John Malick ñaa ñooñu ñooñu ñoo doon moroomam ñooñu kay delee na dépassé waaye ragal nu ko mais ay Sa Thiès ak ñooñu duñu ay moroomam ñooñu mën naa ne ñemewuñu ko. bi muy bëree Gris 2 man la ma waxoon dama koy wax parce que Gris 2 laa dekkat Medina moom laa farat. bu ñu ma laajee ci girido lu ñu ma wax faveur ba moom laa koy jox parce que dañu ma koo wax fekk ma Medina laaj ma ci mbiru Medina te man nekkuma nit ku soxor nekkuma nit ku naafeq Reug Reug am na combat yoo xamante ne nii bi mu koy bëre bu ñu ma ci laajee man moom laa àndal mook ay elto nag yooyu parce que moom laa xamante ne parce que moom man moom sax dem na boo tontu foog na dama ko bañ te man duma bañ nit parce que moom sama xarit la moom xam na toog na nu nii pàkk ba ci Assane Ndiaye ma woo ko mu ñu woo ménagère am di wax booba agsiwul fii boobu dañu doon waxtaan di changé da daa bëre simple sax man ma dikk di ko supporté man sama booy la aw ma ci problème ci dara booba sax ba ma waxee loola naqari na ko mais moom dafa comprendre parce que man xam naa ne moom champion la parce que bu képp ku bañ a bu rek moom bu teeyee rek ñëpp dina bëre moom yoon wi mu aw mën naa dem sax ba nekk roi des arènes parce que mën na bëre ñeme na entraînement am na doole gëm na ko mais nag du question man sama mbër ngal may laaj ci Reug Reug dinaa la xamal ne agsi wut ci moom te moom xam na ne agsi na agsi wut ci parce que bu ci agsi woon du ko dekk xam nga Balla Gaye ay Gris Bordeaux ay ñii gisoo leen ñuy son ci dëkk ay ama ay Tapha Tine ak ñeneen non Tapha mer ga du question la ko Reug Reug dëkk parce que Tapha am na ñu ko doon dëkk ñu gën a ñu gën a tuuti Reug Reug parce que ama neex dëkk na ko fi te boobu agsi wut mais Tapha dafa am lu mu xalaatoon te nekkul parce que Reug Reug daa dem ci loxo Abdou Fall jàpp ja waaw jàpp ko yóbbu ko ci géew bi ne ko signeel léegi Tapha dafa foogoon de nag Abdou Fall moo dikk jël Reug Reug dikk ne ko kaay dekk tafaatin te xam nga loolu promoteur waru ko def loolu ku ku ñu ko wax mën nga mer man après man laa ko expliqué moom comprendre na mais du dekk ba ah Reug ku mu dekk nga mer mbërëm làmb bu dikk ci làmb yëngal kenn dekku la xamal ne yow taxawatoo mber mu jar rek la ñu dekk kooku moom loolu moom nekkul problème Reug Reug daal sama booy la nee ko moom na xaar na xaar moom mook Sa Thiès combat la ñooñu moom mën na nanoo bëreeg moom moo Garga Mbeuse combat la mook Moussa Ndoye combat la mook Modou Anta combat la yooyu yëpp ay combat la mook Bombardier man sax dama doon naa dukki waaye mën nañu bëre comme Bombardier pare benn attaque ko dese wala yii mën naa maye sens mais Tapha Tine xale bu ndaw la mënu de dikk di bëree arrière nag parce que loolu nekkatul maye sens parce que boo bëreek sos bëreek euh, Yékini Senior ba rek euh, kii guy gi ba rek Ama Baldé kenn rek la ci daan ñu ne yàqu na yàqu na nangam nangam loolu sax day tax dootoo bëgg a maye saas parce que bu dee kii dañu la ne bu la daanee jeexal ga loolu koy xanaa doo dof di ko def mais mber nag moom man wax dëgg yàlla loolu dama ciy wax ci sama booy yi parce que mber mber mber da ngay dem ci làmb di dëkkaate di tekkuwante di wax. bu fekkee ni da ngaa nar a mel comme ab sëriñ nga dem tëdd sa kër jànge ca alxuraan ja foofu moom d'accordal naa